beneen bi ci des nar bi dafa ñew ci mom ne ko ñett laaj la am moy bi may mujjé ñett laaj ba ñent mu ne ko bismillah mu ne ko sa ak yalla sa ak yonente bi sa ak nit ñi ak sa digënté ak mouride mu ne ko bismillah mu ne ko wa sa ak yalla mom lu démé nonu noonu yaag lu ngeen seq mu ne ko jamm señ mi ne ko jamm mu ne ko amu leen benn jafé jafé mu ne ko amuñ benn jafé jafé mu ne ko lu ko waral mu ne ko lu ma digël def naa ko tu musuma laal lu mu tere lu mu defet neex na ma nar bi daal di woo ko bopp ko waaw kooku moom mun leen am benn jafe-jafe mu ne ko sa diggante yonent bi nag mu ne ko amuñ jafe-jafe moom it jàmm mu ne ko lu tax mu ne ko na yàlla bëgg ku ni bëggee yonent bi bëggee naa ko noonu na yàlla bëgg ku ni toppee yonent bi toppee naa ko noonu mu ne ko ah kooku amu leen jafe-jafe ko sa diggante nit ñi mu ko jàmm mu ko lu waral jàmm mu ko ku ci tooñ nga yëg maa tooñ jéggal naa la lu rëy ngi noonu dégg nga tubaab foofu nee ci tooñ bala ngay yëg ni ak tooñ la jégal na la te lu ñu yor bàyyi ko ak ñom te lu ma yor bokk na ko ak ñom motax tax ma ak ñoom du jam mu ne ko lolu ah, loolu da jàmm rek mu ne ko beneen bi ci dess moy sa mouride yi mu ne ko sa mouride yi ni ma gisee ñu niñ la bëggee boy xol day mel sahaba yi sax bëggee wu ñoo ñu yonante bi beneen bi ci des yow li may gën jaaxal nak moy duñu bëggante ci seen biir kon booba gis na ak bëggante kon ak bëggante mën na ñàkk ci ñun mu ne ko bëggante gi bëggante ci seen biir moma jaaxal mu ne ko waaw ñom de li tax mu ñuma ñak bëgg moy mu ko ah mu ne ko dama yuru lor ju jëm ci ñom dan ne ko lolu ñu naan fayu ci tuba lolu ñu naan fayu bu ma sama borom digaloon ma dem ci tuba yi ya fayu ji dana ko wax xor gi nek ci nit ba fayu mu def ko ci man ndax awuma man ahmadu man sa nafin bila dara rek ku mu munta jariñ bala waaye mënumaa lor ken motax tax man yuruma yuruma lar ju jëm ci ñoom wax bëgg mu ne ko bu sama murid nak bëggante giñ bëggante ci seen biir mu ne ko waaw mu ne ko loolu jaxal mu ne ko waaw mu ne ko bu la jaxal mu ne ko lutax mu ne ko dama leen a boole luñ see doogut dama leen boole luñ see doogut naar bi ne ko ah kon de li nga leen boole te séddooguñ ko xanaa war naa rëy sëñ bi joxoñ jëmm ji ne ko sama jëmm ji laa leen boole te séddooguñ ko li feeg séddoowuñ ko rek dañuy nekk benn kon yaa rabbi yajxalil muridina maha fi gis nekkan asini wasam lañ maha nañ jàpp ci suñ tubaa suñ tubaa yëmut ak kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëgéen jëf